nihma Cheikh Fallou Cheikh Fallou laay. kasu rajabin akramani. yow yow nag li ma la ci digal mooy danga ma daa bind bataaxal li ma li ma nee a ko wax salaam yi. ko bëgg a dem tegal ci yow ngir ngir ngir boo xam ne amul pakk amul ma ko waxoo ci rek. yàlla liggéey boobu boo demee parce que loo mën ak loo mën duñ rajab daf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 wajal kalaami rachidan wa murshida wa fikrati nawir wa qalbi arshida barkeb Cheikh Ahmadou Fadel salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñi ngi tàmbale liggéey bi sant yàlla bu baax li ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sant Sëriñ Tuubaa radiyallahu taala anhu ñaan yàlla fayal nu ko te yàlla taasuñ ci ay barkeem sant Cheikh Ahmadou Fadel ma booleeg yàlla fayal nu ko te ci ay barkeem ñaanal Cheikh Mouhamadoul Mountakha xalif général des mourides mu yàgg fi loolu te wér ba li muy liggéeyal ak li mu bëgg a liggéeyal Sëriñ Tuubaa lépp mu àggale ko ci sago te ma fekkee ko te ànd ko ak moom noonu lañ ko ñaanal Cheikh Abdoul Baraka ñu jëwriñu kër ko fan wu gudd ak ko wér ba li ak li bëgg a liggéeyal Cheikh Mouhamadoul Fadal ba ko liggéeyal Sëriñ Tuubaa lépp mu àggale ko ci sago di ziyaare jëwriñu kër sañ Fàllu gi di Cheikh Mouhamadoul Bachir di yàlla yàggal ko fi te wéral ko di ziyaare ki yor kaddu kaddu kër gi di Cheikh Abdoul Fatah ñaan ñaan yàlla wéralu ko te yàlla guddal fanam Cheikh Amadou Mourtada mi topp ci moom ak nun dong yi nekk ci kër gi ñëpp rek góor ak jigéen mag ak ndaw di eh, sant nag sama seeti sëriñ yu baax yi nga xam ne ñoo ma boole ci liggéey bi nga xam ne soxna Ndeye nekk ce kanam boole ko ànd ko bokk mi te di sëriñ Fallou Mbacke sëriñ Maw Moodu ak sëriñ lu mi ci des eh, muy liggéeyal seen maam ju baax ci ci cadre média yi li ñu tuddee Ndindy Actu yàlla def ñuy séntu weer wi tey ñu bëgg am liggéey yu ñu liggéey sëñ Fallou ci wane ay liggéeyam ndax liggéey sëñ Fallou dafa rëy loolu te yaatu te média ak tasaare ko ci liggéey bi la bokk ñu bokk ko tàmbali nag yàlla seen mbaax tax ñu baaxee ma ci ma euh, bëgg ma ma ma barkeelu ci loolu dañ leen ci sant bu baax a baax ndax seen seen kilifa bu baax dana wax ne ku la bëgg ku la bëgg a jëriñ da lay liggéeyloo kon mbirum sëñ Fallou ku koy liggéeyal woo ca dafa laa bëgg a dimbale te yéen la aw yiw ndax sëñ Fallou léppam yiw la. kon bu ko defee rek ci sant leen ci sant bu baax a baax leen ci encouragé di ñaan yàlla defal leen jàmm defal leen ndam ci média bi yàlla yokk ko mu nekk ay média ñëpp yi dégg ci barkeb seen maam ju baax ji ñuy liggéeyal di Cheikh eh, nga xam ne wax ci moom jafe yomb na jafe na ndax liggéey bi dafa rëy lool te yaatu kaar yomb na ndax loo wax ci lu baax rek ma nga ca waaw adduna nag dafa doy waar ba nga xam ne média dafa doy waar sensible dafa dem ba léegi nekk pouvoir sax te eh, réseaux sociaux yi nga xam ne moo xew léegi xaw a doy waar ba tax na boo ciy wax da ngay da ngay da ngay war a tënk say wax te war koo peser war koo mesurer bu baax rek mën ngaa eh, wéeru rek ca bayti ba suñ mbay mbay jaxate waxoon bu yàgg rek ne booy wax na ngay peese say wax peese mboolem ña ngay waxal te peese ña koy dégg ak ña koy xala dégmati waaw ndax réseaux sociaux yi dafa doy waar ba nga xam ne loo ci wax rek dans les minutes minutes yi ci topp rek mu tasaaroo ci àdduna si su ko defee nag. dañuy fa yéene rek lu ñu fi wax mu gudd mu gàtt na nekk lu wér lu ñu mën a vérifier te it ñu xam ne du du ab taalibe bi buy jéem wax ci sëriñam la rek waaye du leneen te it eh, eh, bëgg a jariñ ci barkeem bëgg a jariñ ci barkeem itam ndax sama waa kër yu baax yi ba ma boole ci liggéey bi li ma ko wax ni ma yéene aw waaye mën nañ ko wax loo ñeneen mën nañ ko def loo ñeneen kon ñu leen ci sant leen ci këram naan yàlla dafa leen cat yàlla dafa leen barke ci barke bi seen maam ju baax ji Cheikh Mouhamadul ñu bëgg dugg ci weeram mu tedd di weer xam ne ngeen ko xamee eh, weeru ci weer dafa bokk ci weer yu màgg yi nga xam ne al ashurul xorum ci la bokk weer yi nga xam ne naka jëkk dañ ko daan màggal lu jiitu islam bis am ñu yow màggal ko itam boole ci rajab bokk ci weer yooyee Cheikh Mouhamed Fadel ngeen ko xamee am na ci loo xam ne du ci eh, sori ndax xam nañ ko fi mu bokk diggante Cheikh Mouhamed Cheikh Abdoul Abdoul Abdoulahi wa Xadim Rasuli di Serigne Touba ak Soxna Awa Bousso foofu la feeñee loolu xam ngeen ko dégg ko ba tey du ma ci insister Soxna Awa Bousso di waaj di doom ci eh, Cheikh Sëñ Bousso bi Sëñ Bousso bi ak Maam Jaara bokk lépp soxna aw bu sa doomi ne jaay sëriñ bi la ci saahir bu bu sëñ bi doon nit loolu ci sëñ Fall la jógee ndax euh, dafa dafa dafa am ñu ko mas di wax ne ci wéetal gi sëñ Touba dafa sori lool ba lu muy def rek ci la moom la ciy jiital euh, ñu doon wax ak moom xam nga jamono dafa yàgg xaw day waar ñu ne ko yow daal dañoo seetlu ne sa taalib yi dañ laa dañ laa desee wekk dañ laa ñeme lool da ndax sa lewet gi sëñ diw la ay taalib yi mu gën a fonk mu ne waaw ma dama bokkut ak dama bokkut ak ñu bari ndax man dama jàpp ne sëñ Touba nit euh, bu nit dañuy wax ne euh, fii ci réew mi li fi xew mooy nit ki da ngay dëkk ak sa kër waajur wu jigéen maanaam sa kër baay mbaa sa ndey bu sëñ Tuubaa doon nit kon loolu am loo ci dégg bu doon nit dañuy wax ne mooy sama waajur di sama nijaay moo tax dama jàpp ne lu ko waay defal rek mën lay dimbale ndax dama jàpp ne bu ko ñëpp bàyyi woon maa ko maa koy wéttali kon kooku fa mu nekk sëñ sëñ Tuubaa sori na euh, li muy def lu nekk sëñ Tuubaa la ci jiital euh, lu détail tuut tuuti lu mbir rëy rek sëñ bi la ci jiital ndax loolee sëñ bi wax ca xasidaam gu siiw ga ne sama bëgg sëñ Tuuba yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy sëñ Tuuba laa jublu la wax ca si gu siiw ne sama bëgg sëñ yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa dafa maa effacel bëggug moom waaw mahat mahabbati al muxtaara sayidina xubbil maganiya wal ahlina wal walada bëgg gi ma bëgg yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa ma dafa ma faral ba ma bëgg leneen ba ma bëgg njaboot bëgg ma kër bëgg ma waa kër bëgg ma njaboot bëgg ma xéewal bëgg ma dara suñ yoon gën nga bëgg laa mu yonent bi sallallahu alayhi wasallam sëñ Tuuba dafa lim wax tudd na ahlina wal daal sëñ Fall nag da ko ko da tënk moom ne bëgg ma bëgg sëñ Touba tax na bëggatuma leneen lu dul moom xubbi lahu dahra yoxu nii nii an xubbi si waaw waaw bëgg ma bëgg sëñ Touba tax na bëgg bëgguma leneen lu dul moom waaw bëgg nekk fay lim moom dana bëgg bëggatuma leneen lu dul moom donc génn bëgg rek la muy sëñ Touba kon yëgoom ak dalam ak yëpp sëñ Touba koy mooy moteur bi moo koy yëngal moo koy daral waaw bu ko defee nag eh, ñu ne woon ñoom eh, sa waa kër yu baax yi sama sëti sëriñ yi dañoo bëggoon ren seen seen seen thème ci sëriñ bi nekk liggéey sëñ Fallu ñëwee ñu waxtaan ki nag mooy leen liggéey Sëñ Fall dafa bari lool te yaatu lool te te te mën cee wax lu bëree bari bari mooy la man sax xëy na ni ma demee ci moom tax na wax ci moom dana ma jafe damay jéem a jéem rek sànni leen ay kàddu yoo xam ne dama leen di baliser le terrain bi dafa leen lu ñu mën a tuddee boo xam ne koy ubbee rek bu ko defee ñoom nag danañ seet ñoo xam ne danañ ko mën a tasaare man ko faram-fàcc mën ko yaatal ndax Sëñ Fall liggéeyam dafa yaatu lool boo ko tàmbalee ci yar bi yar bi ni mu yaroo ni mu feeñ ci àdduna rek askan wi rek ñaari askan yi boo ci duggoon askanu Mbàkke askanu Mbuso bi mën nga ci développé lu bëree bëri ni mu ni mu yaroo diggante sëñ sëñ Daam Abdourahmane ak maam Thierno ak sëriñ bi ni ko jàngalee ni ko formé ni ñu koy fi jaar fépp loolu rek mën nga caa wax bëree bëree bëri diggante mag alquran alquran ni ko defoon ni ko mënee woon ni ko bind li ko bind ak li mu jël sëñ Tuubaa kaamil nga xam kenn mën nañoo wax ne xamuñu ko ku jël sëñ Tuubaa kaamil tul noonu ñaar fukki juróom-ñett siiw na waaye ci loolu buñ doon seet ñu ko bindal Sëriñ Tuubaa kaamil li ñu toll bariwul nga xam loolu rek mën nga cee wax lu bare bare bare am nañu bari ñoo xam ne seen kilifa bu bindoon benn kaamil bu ñu xam rek kenn du <laughs> xam nañ ko danañ ko publier danañ ko móol danañ ci coow coow lu jeex waaye moom ci bind mën ñeen fukk gis yu bari yuñ ci móol ak yu nekk ci talibé eh, mu xam ne lu muy def lu ne alxuraan la alxuraan yëpp lañ seetlu ne mën nañ jox mu nang ko ñaari loxam leneen loo ko foofu lu mu doon nangam nangam la tegal foofu waaw moom nag muy bindal ko ci ñeent fukki kaamil yoo xam ne bu ci ne lam ci yéene woon am na ko xam ne kon day mel ne eh, eh, eh, te bi fi suñu tooy jógee mi ngi am ñeent fukki at jëm ñeent fukki benn jëm ñeent fukki ak ñaar gën day mel ne kon day mel ne at mu ne moyenne bi mooy at ne kaamil te ciy génn at yu njëkk yi nga xam ne boobu xañ ne tout tànk la ci taxeer xam ne kon day am gën jaa néew day am at yoo xam bind ci lu ma ñaari kaamil waaw te xam nga bind kaamil ni mu jafee te da koy bind topp ko suñu suqi ko sot ko def ci jaafira mu yóbbu ko sëriñ bi waaw ah, te sëriñ bi xam ngeen dañ daan ni daan examiner alxuraan nga ba ñu ba may jégalu si waxin bi bu ko tegee ci dënn bi rek araf yee wax moom araf fu manqué da koy wax ne ko manqué na nangam nangam ñëw ma ñëw ma nga xam ne bu dee barab sàngane bu ñu ko seetaatoon eh, bu ñu ko seetee fekk ne am na am na lu ñu fa war a defaraat donc mu defal mu defal ko ci mu ñeen fukk xam nga loolu tuyaaba ji kenn xamul mu li mu liggéey ci yoon yi liggéey ko ci njabootu Sëriñ Tuubaa gi bu ñu demee ba taxawu ga mën nañ caa wax lu bare bare li mu def ci dëkk bi nga xam dëkk bi mu ko lotisé ci njiital doomam ju baax ja Serigne Cheikh Mbacke Ahmadou Mbacke la Gaynde Fatma radiyallahu anhu nga xam ne dañoo wax ne idi ci tàmbali boobu moo amoon xalaatu lotis Daaru Xuddoos bi mu ko yëgee mu woo ko ne dégg naa da ngay bëgg tudd Daaru Xuddoos mu ne ko waaw mu ne ko doo ko yemal Daaru Xuddoos rek Tuuba dëkk bépp nga lotise te bay nekk jawriñ ci loolu di liggéey bu rëy ak yam ca def lépp nam taxale ñu waroon jumaa ji indil waa Kër Sëñ ñu liggéey ci digganteem ak kilifa diini yi mu jamonoon teel lim taxawu ñu doon jàng lim taxawu néew doole yi lim ndox mi mu indi ci dëkk bi courant bi mu indi ci dëkk bi jumaay Sëriñ Tuubaa ji mu àggale muy liggéey bu rëy loo xam bu ci yemoon rek doy na ko ndam ci xilaafaam màggal gi mu woote màggal gi ñëpp xam nañ ne Sëriñ Tuubaa ko digle Sëriñ Tuubaa ko digle woon ca njaareem ci atam yu mujj ba ba ko borom xamal ne natt yi mu ko tegoon jeex na léegi saa bu bis bi digg dikkatee lu mu amul lu mu amoon ci wiiw da koy ful bis bu ñu ba bañ ba àjjana ak jàmm lu xéewal yi bari bari bari bu dat bi ñëpp am na lu xew tey ba sëñ bi digal nañ koy nañ koy màggal ci waxam gi suuf jooju ngeen xam waaw lu tàmbalee ci ganaar ba ci gëléem képp koo xam ne sa mbég sama mbég sa mbég su bu accès da nga ma ci sant la yàlla dañuy wax ne ci lañu mës a dégg suñu Tuubaa sàkku ndimbal te lim sàkku ndimbal moo ñuy santale ko yàlla fa muy jaar la muy rëy rëy rëy nam ko ñettalee maam Thierno ne ko fi ñu jaar bari na waaye noonu bi lu ne jéem na ko waaye neewu oh. na u xam nga ne noonu tubaab moom ku tàmbali seen loxo moo juróom-ñetti at sama ni xija ji ni ilaa xalilan ca géej ga ak lam daj ca Mauritanie ak lam daj ca Thièyène ak résidence yooyu ci njaareem waaye mësul ne u oh. rawatina nag juróom-ñetti at yi mu def ci Gabon nga xam ne am na ci ñeent mbaa juróomi at yoo xam ne leer na ni ñu ko waxee ci garab la nekkoon suuf garab taw baag yooyu matteeg métit yaag sedd baag tàngoor waag humidité ba loolu xam nga ni nit mënu ko mu mënu ko supporter waaye mosul ne on mosul sàkku ndimbal fi ma sàkku ndimbal rek mooy bi bi nattu bi jeexee mun dafa sàkku jëm ci ñu sant la ko yàlla loolu mën nañ cee wax lu rëy rëy kon woote googu mu woote ñu ñu ñu ñu sant ko yàlla woote màggal gi ñu koy daje Touba bu ci yemoon rek mu dee ko sëkk ndam li mu liggéey ci stabilité réew mi soxna si mu may junj ne dafa bëgg ñu incité ci diggante ak président Senghor. loola ab diggante la boo xam contexte ka warloon ndax xam ngeen ne sëñ Fall bi mu nekkee xalif da koo jël ci jamono yu metti am na ci détail yoo xam ne duñ ko wax ci biir wala man man sëñu ma ko wax. xam naa ci lu bari sax waaye dañu am loo xam ne euh, ci gàttal rek mën ngaa tënk ne li ko boole woon ak Senghor rek mooy àggale jumaa ji ndax booba nekk na fi suñ tubaab digle jumaa ji toppatuloo ab lim jotuñu ko taxawal ci kanamam sant sëñ Mbàkke Buso natt mu natt jublu xibla gi ñu natt ko Cheikh Moussa Mbàkke teg ko ànd ko sëñ Fallu njabootu gépp Cheikh Moussa ci noonu ba kii jafe mooy plan jumaa ji ñu woon da ngeen wax ne démb ne xam nañ ko ko téyeru nañ fañ ko dencoon waaye nag waruma du tax ñu tudd ko waaye li mën a xew rek téye nañ plan jumaa ji te jumaa ji toll noonu kenn mënu ko tabax te gisoo plan basé ca dool ca yokk loo ci yokk waa nga wàññi ci loo ci wàññi maa nga yokk def ko ne mu defee mais foog nga xam plan bi biñ ko tëralee mu amoon ca jafe-jafe euh, yi dox di dox ba Senghor agsi mu gaaral ko ko mu ne ko euh, tubaab lu mu def def ca ñaar mooy tubaab lu mu def def na ci copie denc danaa fexe ba xam bureau architecture bi ko dessiné woon ma am ci copie indi la ko loola mooy digganteem ak Senghor la ko waral moo ko moo indi mooy baas bi te dégg ngeen ni ñu ko nettalee li li waral seenu jaxasoo loolu nag ñu ngi ko ciy wax waaye bari ñàkk xam ne rek ak sensibilité si sujet boobu ak bëggu Sénégal yi bëgg politique lu laaj lu laaj ci politique Sénégal lañ ko bëgg naka jekk rek seen wax lu jëm ci dañuy wax ne ñaar moo ci gën a moom a bëgg ba léegi loolu alaw ba léegi mooy politique ak sport moom débat bu jeex la dañ ko dañ cee mag ñu baax ñu ñu ko waroon mu Cheikh Amadou Lamine Bara ak Cheikh Amadou Moussa Fadilou nga xam dañoo dund li may wax nekk nekk ci ñoom ni bi ñu demee di wër di wut di wut réew mi xam nga ne Senghor Lamine Gueye ko fi indi président Lamine Gueye moo fi nekkoon député nekk docteur en droit di ko jàng di ko xam ci sanam di male mais mu juddoo ndar màggee ndar sengoor doon ab jàngalekat waroon na ñëw Sénégal nee na pour def thèse ci poésie séeréer loolu la ko waxee moo tax daanaka wax ne dafa dugg ci politique par accident président Lamine Gueye moo ko ci dugal muy mooy waaye xam nga politique rek ànd ak réeroo da da ñu ànd di kii ñu réeroo Senghor nekk candidat nekk candidat ci gàttal. bi demee di wër di campagne nag ba war a ñëw Touba ñu xam nga candidat yi en général barab bi ñu war dem dañuy juyeloo bu ki ñëwee ba dem keneen ñëw ci gàttal rek bi président la bi ngay ñëwee wax na ba suñ suñ Fallou wax leen ñi nekk loon ci njaboot gi ne leen kat ñoo ñuy wër réew mi de Lamine xam naa ko ndax mos na nekk suñu avocat sax ci mbirum jumaa ji Senghor nag xawma ko sant laa ci xam wala wala li mbër yi yor waaw waaye jëmm jooju mosuma ko gis Lamine Gueye moo xam naa ko bu ñëwee fii nag ku ci wax lu jëm jumaa ji ki ci des ko wax jëm ci jumaa ji am li mu bëgg bu ko ci kenn waxut kenn du ko ci am sëñ Mourou bu sax ci sax saf xorom bi am na lu mu ci am na détails yu mu ci nett leen ba ñu wéetee da ko ne bu kenn waxee jëm ci jumaa ji kenn waxu ko ka wax lu jëm ci jumaa ji am buñ ko waxandoo ñoom ñaar ñëpp ka ko njëkk a waxee am parce que damay xam ne kooku kooku ko teelee wax ñoom ñaar ñëpp ëpp lu mu ko baamu loolu wax ko ca mboolam waaye bu wax détails yooyu nee na ñaar kenn waxee lu jëm ci kenn wax ko ka am ka wax lu jëm ci jumaa ji am ñaar ñëpp ko teel a wax nga xam dafa tàmbalee yoo xam ne daa wax a ñor kon kooku ko teelee wax ñoom ñaar ñëpp ka ko ay yoon danaa xam ne kon kooku la gën a ñor bu ko ci kenn waxul ne kenn du ci am dara xam loolu bu ñu koy wax boobu gars yi ñëwaguñ Senghor la ñu Lamine Gueye ñëwagul ñu toog fa ay fan ñu njëkk annoncé ne président Lamine Gueye mooy ñëw président Lamine ñëwee wax discours xam nga avocat la docteur en droit wax ju bari te neex la yàgg lool waaye waxul lu jëm ci jumaa ji am fu njaar jarul ñu ciy dugg détail la am na lu ko sëñ Fall jox dimbale ko ci campagne ba ñu teg ca benn fan ñaari fan Senghor ñëw nee na bi ñëwee daf ko ne sëriñ bi papa fii du ma fii du ma fii du ma wax campagne politique du ma fi waat li may bëgg su fekkee ne am naa ko su fekkee ne li ma bëgg suma ma ko amee dana leen dimbali seen juma bi nee na boobu baatu juma ko wax seen juma bi yàlla naa ko am su fekkee nag su ma ko amee du ma leen dimbali seen juma bi yàlla moo ko am mu ne ko jeexal indi sa ànd na ma ak yow nga xam loolu mooy base su àndam ak àndam ak Senghor rek dana ko jàppale ci liggéey ak li liggéey suñu tuwaay parce que loolu dafa jafewoon booba ndax boobu xeex bari woon na blocage yi bari woon na lu ne def nañ ko ci lu ne dégg nañ ko ci ci nett la ndax am na ci loo ko waxoon mën nañoo tudd ay tur nangam jiw loolu ko jar ndax histoire la a xam xam nañ ko mën nañ koy wax en privé mais day am loo xam kenn du ci euh, mbooloo dañ koy wax nit ki waaye kenn du ko wax nit ñi ko wax ci pénc waaw bu ko defee loolu mooy moo waral seen diggante Senghor lam ko waxoon def ko dem France fexe ba xam bureau d'architecture ba ba ba dessiné woon jumaa ji am copie indil ko sëriñ bi loolu moo war loolu moo waral seen diggante ba tey muy wane itam tolérance suñu fàllu loolu lañ ma wax ne dañoo bëgg ñu waxtaan ci tolérance nga xam mën nga koy jàng tolérance parce que euh, euh, euh, ci ci kaw nii rek boo ko seetlu Lamine Gueye moo day mel ne moom la war moom lañ war a yoon a jàppale ndax mooy jullit moom lañ fi xam mooy mag Senghor boobu xale la damay wax ne booba élément yu bari da ko wër yoo xam ne da ko waroon a baare pour du mën a jàll ndax d'abord Euh, xale la ñaareel ba catholique la catholique sax amul amul lu waaye euh, li ëpp Sénégal di julit kon kon Sénégal julit la ñuy àndal ñaar ñetteel ba amuloon xaalis parce que ran jàngale français dem ba war a def doctorat nee na war a ñëw Sénégal pour def thèse sur la poésie sérère genre a séréer yi wayu séréer yi ba ci def thèse thèse d'état parce que xam nga Senghor écrivain la moom moom eh, rek bëggoon a def thèse na far la mi ngi xëcc ko bu dugg ci politique moo tax Eh, dégg ngeen ba ba sëñ ci bande sonore yi fi nekk mu wax ne moom waa ji kat jàppale ma ko ngir lu ma bëgg ci moom jàppale ma ko ngir lu ma ragal ci moom dama ko jàppale ngir damaa jàppale ki ma amul loolu moom muy sëñ Touba. nga xam ne lu mu def lu ne sëñ Touba koy déterminé la ko Senghor waxoon ci eh, plan yee la xar ci ne ko mu ñëw mu am indil ko ko loolu la ko jàppee waaye du leneen. am na xese bu kéemaane buñ ciy wax buñ ne dafa demoon eh, siyaar ji Poroxaan jóge fa jaar naawel ci jóge fi ñëw Kaolack kër gi mu dal ci Kaolack nga xam ne représentant am la laministe la nga xam ne booba kër gi néeg yi mu nekk lal yeeg dara yeeg dara yeeg ak ngeenaay yëpp couleur xonq lañ ko ak rideau yi mais ñu ñëwee eh, bu ñu dem teel a xëy ko fekkee ma ko nettali nee na bi ñu teel a bi ñu demee ba am fu ñu taxaw julli fajar jot ñu am fu ñu taxaw julli fajar nee mu wax ne ah suñu suñu dem bii dañu am lu ñu yóbbaale. sëriñ Euh, ñu ne ah, boo koy indi da ngay da koy waajal kër gi indi ko waaye dañoo ñëw ba fi laa koy fàggoo kër ñu jëm ku ma fekk ci ñaar ñooñu wut réew mi rek moo jot réew mi loolu nag beneen aspect la maanaam aspect sañ-sañam la ak ak ak ak ñaanam ak nangu ñaanam ak bàttinam kooku lu ñuy gëm loolu lu ñuy wedd kooku ndax mooy euh, beneen mbir moom waaye nii la demee te ki ñu jëm këram dafa daal la ministre la mu ne ku fekk ci ñaar ñuy wut réew mi rek moo moo moo ciy jot ñu ne bi ñu demee dal dem dem Poroxaan jóge fa dem naawel ñëw kër gi kër gi ñu dara taali euh, représentant bu nekk ko la ñu wax Allé Samba Guèye taali bi waa Darou Mouhty foofu itam mën nga cee jàngat leneen maa ngi ko ñu li ëpp ci ñim daan def représentant duñ ñu jébalu ci moom direct loola loola option la woon boo xam ne wane ne ñëpp lu jaboote waaye ne Sëñ Tuubaa la fi nekkal barki démb rek bi alay njagee trois cent naka faatoo maa koy maa koy weññi ne la njagee mu nekkoon Dakar alay Bamba Jow Tuubaa guy Senghor ak ñeneen ñu bare bari ak Alexandre Gueye bu nekkoon Kaolack nekkoon ay représentant te duñ taalibe yu jublu ci moom direct waaye comme gis na ne moom bu mooy Sëriñ Tuubaa moo fi nekkal Sëriñ Tuubaa ñëpp la ñëpp la ñëpp la a liggéeyloo bi mu ci ruq boobu diggante Fatick ak Kaolack ak diggante sëñ bi kat am na wax nee na kat ku fekk fii ñaar ñi wut liggéey kër gi réew mi mu da nga yaay jot réew mi mu ne ko ngane mu ne ko waaw mu ne ko xaaral boobu président Lamine Gueye mi ngi Kaolack di def meeting Senghor mi ngi Fatick léegi kooku daal ci président Lamine ah, na lu sëñ gaabal looy def nga bàyyi ko te ñëw ni bi mu ñaanal ndax am na lu mu wax ñëwal rek ba ñëwee daal ko leeral mu ne ko waaw du sëñ bi day fanaan mu ne ko waaw day fanaan mu ne ko nag may may kon su ma fii damay dem ñooro am dafa def meeting su ma dellu si nag guddi gi ma ñëw ndax mu gën a yaatu lu ko tee a ñëw léegi mu ne ko dama bëgg dama bëgg toog sëñ bi toogaay bu yaatu ndax am na luñ bari lu ñu war a wax léegi da nga may may rek comme day fanaan <laughs> ma dem ñooro ah, far fi noppee cinq noppi pare meeting moom Fatick ñëw Kaolack comme la nekk ku xam kër nee na cinq romb fa gis oto yi ne waa lu xew fii ñu ne ko sëñ Fall la fi xew mu ne sëñ Fall mel waaye xanaa mu jaar fi saare ko nga xam ne bi mu dugg see dañoo mel ni nit dafa faatu ci kër gi am am ku àndoon ak sëriñ bi ku ko miin mais ba ñu waxi tur ndax histoire neen daal daw jiitu sëriñ bi ne ko ah, am na lu xew de mu ne ko lu mu doon mu ne ko dafa am loo waxoon de mu ne ko ah, fii nga ah, de ko nag te borom kër gi xam nga ni eh, Lamine la àndal mu ne ko waaw mu ne ko ay sango dugg suñu kër gi de mu ne ko ah ñoo caag li ma li <laughs> ma wax la yàlla def loolu loolu kon kon donc donc sañ-sañ da ciy dugg donc jàppalem Senghor da ciy am lu ko fondé bu nekk mu dugal ci sañ-sañ nag waaw ndax politiquement walla euh, li normal boo ko seet xamoon Sénégal booba ci ci zahir rek Senghor watul mën a gañ Lamine Gueye waaw ndax Lamine ko mag moo ko indi ci réew mi moo ko ëpp xaalis moo ko wàññi léegi nit ñi te li ëpp ci kilifa yi euh, Lamine Gueye la ñu jàppale ndax jàpp nañ ne mooy jullit bi moo fi dëkk moom lañ xam moom ak kële kële kële kële du jullit loolu sax xañ na euh, ndax jullit ak ñoom ñëpp ñoo bokk réew mi war ñoo mën jëflante waaye boobu xama ñi xamaguñ loolu amuñu boobu tolérance Sëñ Fall nag foofu la dépassé woon jamonoom xam te muy benn leçon bu mën a mën a jàng ci moom ndax booba mënoon na nekk lu man di xew rek Lamine Gueye euh, euh, euh, mooy jullit bi te loolu tam am ci luñ lu ñu mën a jàngaate mooy Lamine Gueye donte jullit la dem na màkk jàng na alxuraan loolu def na ko mais bu toogoon du appliqué islam loolu tam day aspect bu ñuy fàtte bu ñuy critiquer ndax nit ki moom mënoo am baaxu def dara ñëpp ànd ca ndax suñ fal lu mu baax baax suñ Tuubaa amul yonent bi amu ko yàlla amu ko bëgg ko amu ndax ñëpp ànd ak sa moom yàlla sax amu ko yonent bi amu ko sëñ Tuubaa amu ko sëñ Fall nag lu ko bëgg ko waaw ah, ndax sëñ Tuubaa li muy baax bax ñëpp ànduñu ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam li muy baax bax ñëpp ànduñu ñu koy wax fi mu ne sëñ Tuubaa ko ci kon ko amu ko te bëgg ko kenn mën ta fexe ba ñëpp d'accord ci moom waaw jéem ko sax moom waaye xam ne leen doon def donc li ma ci bëgg waaw kooku parenthèse beneen bi mooy euh, Senghor ak nu mu mën di mel défendre ko parce que man du ma PS xaw ma yooyu yëpp histoire laay wax rek analyse historique laay def euh, Lamine Gueye bu toogoon du appliquer islam mooy gannaaw Lamine Gueye gannaaw Senghor am na ku fi toog ci réew mi mën naa ko tudd muy président Abdoulaye Wade dañuy ne julli la taalibe murid la mais bi mu toogee appliquer islam kon même Lamine Gueye bu toogoon du appliquer islam ndax ki fi toog gannaaw moom Senghor appliquer doon islam Abdou Diouf mi fi toogoon appliquer islam président Abdoulaye Wade mi fi toog di taalibe di murid appliquer islam. kon même Senghor kon ñoom ñoo Senghor wala googu wuti wuñ fa bu ci tegoon tamit droit droit positif bi bu France bi ñu toll ci France ngay appliqué loolu loolu ñu dañ koy fàtte tamit tamit ci li ma ta li ma ta jàppale wane tolérance ak ak jàngaleem ak eh, li ngay xam rek mooy sëñ sëñ Tuubaa ko ñor boobu keneen am bu njëkkoon a wax loola moom lay jàppale keneen ku fi ñëwoon wax loola jàppale ko sëñ Tuubaa moom lay jàppale boobu contexte bi jafe woon na jafe woon na lu ñuy layal histoire la lu am la waaw li may wax lu may layal wala lu may kii te booba itam tolérance bi àgg na ci dem mënoon na ko saafara ndax xam na ñi woon plan ba xam nañ ko dencoon ba léegi man mi wax ak yéen sax xam naa ko famille ba ñu ko dénkoon ñu denc ko xam nañ leen waaye duñ leen tudd ngir war ma moo gënoon xam mënoon na ko saafara ci taay ak ci baatin waxuma la baatin bi waaye bu doon bu ko waxoon état boobu rek danañ ko génne waaye tolérance noona moom loo xam ne mënoon na ko saafara ci taay mënoon na ko saafara ci baatin waaye daf ko toléré bàyyi noona def ay pexe ba jot ca lu ne wax nañ ko ci nag ci ci ci àggale jumaa jeeg du ko mën ak du ko kéeg nag am naa nga leen di wax barki dem ne am na kilifa yoo xam dañ ne woon kat sëñ Fall de bari na taalibe njigéen njigéen yu a am am ñax la koy àggalee waaye amul moyen <laughs> yu mu ko yu mu ko tabaxee waaw ña ko waxoon ñi ci gënoon a am goo xam ne daf ko ne de bu ngeen demee nee ko féeg may àggale jumaa ji bu koy julli du fi faatu médecin bu ko fi wax ne dana faatu ne ko ne ko wax dëgg waxul dëgg am na ca koo xam ne du ma ko tudd kilifa la ay doomam a ngi fekk sëtam di di jag-jage ci mbir mi Euh, ba mu faatoo bañ bañ jullee jumaa ji 7 juin 1963 ba ci ëllëg sa wala ëllëgaar sa lañ ko indi fii mu jógee dëkk sàngam ñëw du ma tudd dëkk ba ba ñëwee ba wax ko mu ne diw waaw mu ne ak mbaa ñi ñëwoon ci julli gi barki démb bu bu ñu ko fekk nañ ko ba nettali ko mu ne waaw ndax yàlla kon bu ñu ko dencee bu demee nettali ko nettali la jumaa ja àgg na bañ julli ko barki démb jumaa ja woon xam ne ne kon euh, yëf yi metti woon na metti woon na jafe woon na waaye tolérance am taxoon na yooyu yëpp mu mën leen tojal lu yëpp da koy dégg mën ko saafara waaye bàyyi noona kon bu ko defee rek wax ne euh, dafa am benn mbokk euh, ku nekkoon fii mën naa ko tudd sax ndax ci mbokk taalib yu mag yi dañu wax Baye Sarr mët Sarr bari woon pecc wax Baye Pexe bari mag yi xam nañ ko xam naa yéen ndax ndax âge bi waaye mag ñi xam nañ ko mu gaañoo yàggul lool lool daf ko ne daal dama bëgg mët Sarr nga déglu ba xam ñun ci nekk boobu li ëpp ci kilifay diine yi ay laministe lañ woon am na ci ñoo xam sax dañ daan dem ci meetingu lamine doo xam ne sëñ Fallou mu jàppale sa ko mos àgg ci loolu am na ñoo xam dañu àgg ci meetingu Lamine Gueye teg chaise ñu tegal leen bu Lamine di discours ñu ñu taxaw pour influencer ñi pour nañ jàppale Lamine Gueye ay kilifa yu mag yoo xam ne daanaka boo seetoon kilifa diine yi ci ëpp yëpp Lamine lañ jàppale woon kër yu mag yi mag ñi bari ñëpp Lamine lañ jàppale woon bi mat saar demee ci kër yu bari nag ñëw ne ko ah am na lu xew dina waar mu ne ko lu doon mu ne ko dama seetlu lu bari sa bokk yi bokk yi nga bokkal direct ak bokk yi ak ñu bari ci réew mi de Lamine lañu àndal sa kàddu xas na jóg ci Senghor ba noppi mu ne ko demal tëdd nelaw ñooñu ngay wax ñëpp ñu leen tegoon ci ci balance li ma teg ci beneen su ma tegee sama tànk rek kékk gi muy def fu waay di ko dégg loolu nag boobu ñu bari gëmuñu ko waaye euh, résultat boo nee ne ko ne ko damay demee ba dibéer rek boobu la mel couleur bu la yore Senghor yor couleur bu verte mooy damay bay ba dibéer rek carte wu xonk bu ñu dugal rek ma wertal ko ah, nga xam ne victoire du Senghor sax Senghor da ko bett moo coppam ah, waaw parce que logiquement warutoon a gagné ndax éléments yi tax. éléments yi tax mu gagné yëpp amu ko woon amul du woon xale la woon noo ko waxee bokk ci ethnie boo xam ne eh, eh, eh, bari wuñ lool ci Sénégal wala buñ bari tam benn côté lañ ëpp muy séeréer te suñ côté yëpp xam nga bari wuñ fi lool loolu loolu xañ sax amu solo waaye booba nit ñi noonu lañ gisee ñaareel bi tam du jullit xale la amul xaalis donc kon ci ci ci yoon wóotoon na mën a jàll te yàggu si boobu ñu bari xamuñu ko ndax français nekkoon di jàng ba mu jàngee mu dem mu fay jàngale ba mu day ñëw pour def thèse moo ko waaye réeróo gu réeróo Lamine gi li taxit politique dara teey ndax lu mu réew la benn te lu bari xew na ci am na ci kër kilifa dina yoo xam lakkante nañ fay kër rey nañ fa ay nit jàpp nañ fa yëngal nañ fa tribunal te booba kii la li ki sengoriste rek teewul loolu lépp la doon garaawul lépp dem nañoo dem ba jubawaat ba ñu seen ñaari parti ba Senghor nekk président de la république Lamine Gueye nekk président de l'Assemblée nationale noonu lañ nekkee ba Lamine Fatou 68 kon nga xam ne kon mbir mi daka dafa laaj teey yàgg dafa yàgg yëngu dafa yàgg ànd ak violence rey nañ ci ay nit mooy la rey nañ ci ay lakk nañ ci ay kër jàpp nañ ci indi nit te violence yi xew léegi kon nga xam ne beesut dafa yàgg ci politique sénégalaise te teewut Lamine Gueye ak booba dem nañ ba ba gindikoo ba fusionné def congrès boo xam ne UPS sax xawma lan euh, ak ak ak BDS euh, nekk ci Senghor nekk ñu bokk benn parti Lamine nekk président assemblée nationale Senghor nekk président de la république ba ni Lamine Gueye faatoo kon nga kon mbir dafa jar teey lu mu yëngu-yëngu ak lu coow rek jar na teey waaw kon bu ko defee loolu na cee wax yu baree bare bari nag waaw indépendance bi tam liggéey na ci lu bari am na ci loo xam ne neex a wax ndax ay secret d'état la waaye waaye bokk na ci eh, ndax eh, Senghor eh, De Gaulle daf ko xamoon xamoon na tolérance am ak coiffé bi mu coiffé woon yu bari am na ci woote bu ñu woote woon ndar ne bu ñu accès bokk na ci li ko wax indépendance bi bu ma ko jox yow mii laa ko jox loolu na xam nga boo ko waxee fi mu ne coow li mën naa ji ndax li ma wax damaa mal placé pour wax ci ndax am na loo xam boo ko waxee dañu naan ah kii kat day nangam nangam boo demee day wutal bës diw foofu sëñ Fall lu ko ñu wutal bës moom am day wut bi dara bu dee am na ko ba noppi waaw te man tuuti naa ci ko dara ndax am na ko ba noppi loolu am lu gën bës la am waaye da ci am loo xam boo ko waxee dañ koy gisee neneen waaye eh, bokk na ci eh, li tax indépendance bi ñu am ko ci kaw dal ab taxawaayam ak war ma ju ko ñu dagul amoon ci moom eh, ndax booba xam nga li ëpp ci dirigeant Sénégal yi dañoo bëggoon wote pour non waaye mu ne leen waaw daal gisuma fu mu fu mu xañe kenn dara kon nañu wax waaw rek ndax jàmm ci lépp xaj waaw ndax booba gis nañ Guinée mu wote woon noonu la mu ko jural d'accord position politique la bu bu ànd ku fit bu ànd ko dal bu ànd ak progressiste nangam nangam waaye gis nga li mu ko jural Guinée retard boobu ak coono bu moo leen topp ba léegi xeex bu leen topp bi xeex te boobu xañ loolu doon bañoon Sénégal waaw moo tax lu bari ci dirigeant yi dañoo doon wote mais ci influence am ak lu waaw du wàññi dara ci lañ mote woy ba indépendance bi ñëw dugg ci communauté communauté française ci tolérance bi ma doon wax rek tolérance mooy du caa gën ne dafa ragal dara ci France wala dafa bëgg dara ci France wala dafa bëgg dara ci Sénégal ndax xam gi ak doyloo gi mu xam doyloo sëñ Touba ak sëñ Touba ko gëm weesu na ci muy ragal kenn dara wala muy bëgg ci kenn dara waaw loolu nag wax nañ ko ci xam nit seen seen seen seen seen gis-gis toujours day xaw day waar te it eh, dafa am ñoo xam ne eh, eh, boo seen waay rek loo wax rek ñu tekki dara nga wax ñu teg te bu doon ñoom mën naa am duñu doxalee noonu waaw bu defee ñu mën lu bari ni ma ko wax ci liggéey bi itam bokk na ci lotissé dëkk bi wax naa ko ak euh, ndox mi mu fi indi ak courant bi mu fi indi ak ji ak woote màggal gi woote màggal ni ma Cheikh Fallou Cheikh Fallou laay kasu rajab akramani yow yow ne li ma la ci digal mooy dag ma daa ma li ma nee a liggéeyal ka dama ko wax salam ni kasu rajab akramani ko bëgg a dem tegale ci yow ngeen ngeen ngeen boo xam ne amul pakk amul dégg amul pax da ko waxoo ci def rek yàlla gi boo demee est-ce que loo mën ak loo mën duñ ko ne chakku dañ si ba kasu rajab min akramani kasu rajab daf maa teral